mbooleem ponk yi jëm ci organisation màggal Mbàkke Kajoor 2019 càmbar nañ ko ci comité départemental de développement bi ñu doon amal gëñ nañoo renforcer waat sécurité bi ndax ñi nga xam ne ñoo di waa gendarmerie dañu déployer benn équipe boo xam ne dana ëpp ñetti téeméeri élément ay barrières ñu mettre en place benn plan de circulation yeneen ponk yi nga xam ne càmbar nañ ko bokk na ci santé hygiène lekk élevage douane assainissement eaux et forêt ba ci li nga xam ne moo di communication adjoint préfet bu Kébémer Souleymane Touré di xam leen ne mboole matuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël ci màggal gi daañu ko jël te màggal gi dañ ko teg fu gën a kayoo fañ ko daan teg. loolu ci avant pendant et après cérémonie bi dañ ci taxaw mu sët te yaakaar naa suñu ko weesul dara du màgg.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 ñu ciy fàttaliku gane àddina Cheikh Mawlén Bara nga xam ne bu jëkkoon bis bi Cheikh Mawlén Bara génne àddina lañ daan fàttaliku waaye Cheikh Saliou Mbacké woo Cheikh Sidi Mokhtar radiyallahu taala anhu ni ko bis bi nga xam ni moom la Cheikh Mawlén Bara génne àddina ngeen ko daan fàttaliku bàyyi leen ko te ngeen jël bis bi nga xam ni ci la gane àddina ndax bis boobu day bisu ndimbal di bisu tawféex di bisu yërmande. màggal Mbacke Kajoor mi ngi war a doon le 3 février 2019 ca Mbacke Kajoor di dëkk bi nga xam ne fa la Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke ganee àddina waaye yoonu murit fa la sosoo.